jërë ngeen def mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci Cambérène nga xamante ni macha allah xale yàgg na fee jugee waaye ndam yàgg na fay bawoo boo xoolee ci Bismi Ndoye xool ko ci bébé Bismi xool ko ci ñi nga xamante ni moo mel ni pap Cambrène Mbës ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen barki démb ñang mbaalo am na ndam bu rëy ci arène national keroog junni gis ngeen ko li mu def stade Jom Iba tey ñu seet siwaat fi keneen koo xamante ne xale la waaye musagul dugg ci arène waaye combat bi doon na loo xamante ni mu ngi koy waajal am làmb ju rëy muy Lébu Ndooy tey Lébu Ndooy la wasaare làmb seet si ngir ñu waxtaan ak Lébu Ndooy xool ni muy entraîné ak waa écurie am nuñ ko waajalee bis bu mu jëm nan la koy doxalee mbokk yi kon noonu la leen di nuyoo ñu dugg xool Lébu Ndooy nan la dugg see sëñ mbas mbaxal maa lay siyaar. waaw maa lay delloo siyaar jëri sant yàlla julli si baay la. ah dëkk baay nii rek comme dab rek li fi nekkoon moo fi ne ba léegi ah sant yàlla bu wér. waaw di julli si bàyyi la alayhi wa salaam. waajal champion. waaw Lébu Ndooy xippi xool mu ngi nii. ki mooy Lébu Ndooy xippi xool gars yi ñu ngi ñëw di wax nii rek di coow si kanam nag la ñuy comprendre. incha allahu rabi li si kanam raw li bët. ah de gisuma combat am arène waaye fi mu tol nii dafa mel ni bii mooy combat am bu njëkk waaye mbooloo mi bari na de. barki Seydina Limaamu ñu bëri ñëwunu sax nu mu demee la gars yi ëpp nu dara de affaire yi ñu ngi fi te liggéey moo koy maye ñun xam na nañ yoonu liggéey bi quoi ñu ngi si kaw. sëñ Bas kooku mooy Lébu Ndooy gis nga ko mu ngi nii taxaw di takk gant bi kon nañ leen ko bàyyi mu xaw a def yenn yéem a gën a xam su ko defee ñu wéyal wasaare làmb ngay am foofu. xam nga yàlla boole ñu moom yëfam wax ma man temps bi sax daanu fi ñëw danaa fekk ma ne sam boobu ma dem entraînement ma ñoom lekk càmm bu aama isa laay bu aama xam nga. si léegi moo lay xam du na barki Serigne Bamba te maa lay maa ngi gis ngay woy xam nga ngay def lu rafet maa lay seeraan wasaara làmb dama koy seeraan naas barke alxuraanu karim xam nga di ñaanal sama mbër Ama Baldé. champion bi am na combat bu rëy Modou Lo la ama waxoon naa ko parcelle jamono jee passé yow nga ñëwaat fii moom dama la koy wax de ku dàq bëre li moo nga génne ko ku dàq bëre koo ëpp ku gën a daj ay si combat bi yàlla na yàlla may ndam. amiin waay loolu ngay wax. waaw yow Modou su taxawee ama su bëree ama daan ko su xeexee ama dafay du duma bokkuñu. xam nga Modou Lo pël bonde dé déggoo boobu bees boobu xanaa pël bonde barke alxuraanu ko ne nga. loolu après ama signature bi mi ngi mi mi ngi sunu kanam ama dina ko wax. waaw dañ koy dugal Pikine te à domicile la de nan waaj bu baax. parcelle am nañ combat de di sant sama sëriñ nag maam Seydi mu Serif Assane maa ngi sant waaw maa ngi sant sëñ Atex Mbacke tamit. bëre woo sa yoon la wu ci. mais tamit faaw ma teg ci lu rafet ko waa xam nga ñooñu dañuy sooy nit te su ma leen santul rek du baax maa ngi ñooñu dañoo far. barke alxuraan jilib ba ma lay xam yàgg nga ngeen dëkk Inta 4 xam naa nag mi ne tooñu woon mais man maa doon gis man ma daan fere foofu noonu. billaahi wallaahi wa taala xam nga ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb nu yooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su lama leen waxoon rek mu ngi nii te lañ yegg si waat tey jii ñu ngi fii ci Cambérène fekk fi foo nekk gox boo xamante ni champion yàgg na fee jóge comme ni ma leen ko waxee champion yàgg na fee bawoo keroog boo xoolee arène nationale li nga xamante ni moom lafa fa mbaalo def keroog boo gisee stade Jom Iba Mar la nga xamante ni moom la fa junni def tey ñu ñëw seet beneen xale boo xamante ni làmb am nañ ci moom yaakaar muy ñang euh, muy Lébu Ndooy Lébu Ndooy tey moom lañ seet si ñëw fekk ko ci école bi muy entraîné mais macha allah doon na xale boo xamante ni Cambérène am nañ ci moom yaakaar ndax boo gisee mbooloo mi ko topp. nga xam ni xale bi xale yi doon na koo xamante ni Cambérène am nañ ci moom yaakaar loolu lañ bëgg a waxtaanee tey xam kan mooy Lébu Ndoye xam fan la jóge ak fu mu jëm ak nu mu demee noonu mais mbër maa ngi lay siyaar. maa ngi lay fay nuyoo gaañ euh, bala avant tout xam nga ginnaaw bi ñu sant yàlla julli Seydina Limaamu di sant sanuy ñaari waajur. di gërëm sama nday di gërëm sama baay di gërëm xam nga seen waa écrit bépp doo dooraat xam nga di gërëm xam nga xel mbaa Arlem waa Arlem maa leen nuyu sama quartier laa de maa leen nuyu mafia Libundoo bi nag kenn demoon duñu des maa ngi leen nuyu bu baax waa mbayaar gi maa ngi nuyu ñëpp Cambérène gépp daal ba tundu jandeer déen ñëpp maa ngi leen nuyu di nuyu tamit waa Cene bu baax waa Cene ba maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax waaw. du ma laaj lan moo waral lébu ndooy waaye xam naa ne lébu ndooy mooy lébu bi rek. waaw loolu mooy lébu bi quoi parce que c'est le sang quoi on est des lébu lool loolu la quoi moo waral lébu ndooy bi waaw waaw. lan moo la dugal ci làmb ak lan moo la inspiré ci làmb ba nga bëgg dugg ci xare boo xamante ne xare bu metti la muy làmb. waa làmb dam nga dañ ni foom góor la quoi te yàlla dogal na xam nga danoo judd rek fekk sanuy grand frère xam nga ku su mel ay Pape Cambérène ay Lassander champion yu mag yooyu noonu te jii ñu yàgg ñëw di leen seeraan ñuy xam nga di bëre ñu dem ba amour bi dugg na quoi ñun ñu ñun xam nga foom góor la nañ dugg si làmb ji parce que ku dugg làmb ku nekk sa nga bëgg teral loolu rek la. mbooloo bi la topp fu la toppee. waaw sant yàlla rek xam nga lépp si kàttanu yàlla rek yàlla rek mooy mooy mooy dogal parce que champion yi bari nañ fi parce que Cambérène moom lii ñu xam nga du ma ni du ma ni du ma ma ni xam ko parce que lii Cambérène ñun ñëpp ñoo far ñun ñëpp la ko jug rek jugal na la yaakaar naa ni xam loolu rek sant yàlla rek sant yàlla bu baax. kon wax ni Cambérène dañuy sot moo tax ku jug rek ñu sotal. waaw waaw mooy mooy dëkk boo xam ne moom ku leen door leen di moom maari la lay ko fayu gisoo xeer gi njàng baa la yor xanaa rang mooy gaaw keroog wane na ko arène nationale ndax rag la def rek bu gaaw. waaw nag rek muy gaaw bu yeexee gars yi nee baaxul. te le set ngay comprendre incha allah wax baaxul nag. yaa ngi doon mbapat. fii ci tund bi wala génn di mbapat yi. fan ak fan nga jaar ci mbapat. dumbul mi ni coow maa ko daan. dumbul. maa daan dumbul. fët si gaawaay. maa ko daan ba yoof maa ko fekk yoof daan ko mbapat yoof dumbul waaw champion mooy daan ba tundu jandeer ba déen yëpp morolaa yëpp dama fay dama fay mbapat. waaw. Euh, bi saison bi ubbee ba léegi lutte simple yi ñu am yaa ngi doon dem di bindu. non non ren nag ren nag jóguma parce que combat bi dañu dañu ma ko teel a wax boobu ba léegi ñu ngi koy waajal ak suñu mbokk looloo tey ñu mbapat quoi mais incha allah rabbi bëgg nañ ko quoi incha allah. nga war a bëre kañ. maa ngi war a bëri le 7 mars incha allah le 7 mars arène nationale laa war a bëre quoi. dafa mel ni Ouzin production moo organisé bis boobu sa relation ak moom ak fan la la gisee ba tëggal la làmb. waaw Ouzin xam nga dërëm dalu ko xam nga yàgg na gis xam nga moom yàgg nañu xam nga organiser quoi moom ñu bokk si moom muy xam nga moom muy door action yooyu noonu quoi moom tamit damay profité di ko nuyu parce que jàmbaar la jàpp na si combat bi bu baax a baax amoon na fayam moo xel mbaa gis nga xel mbaa moom xam nga dan koy bàyyi yàlla quoi billaahi jàpp na si bis bu baax a baax a baax a baax. mooy xel mbaa mooy lan tour la wala lu mu doon. mooy mbaxal rek xam nga mbaxal xam nga dafa dafa lëjle. waaw mooy mooy mbaxal quoi l' enfant qui mérite son nom l' enfant du quartier kooku ay xel mbaa. yaakaar na xale boo xamante ni góor a Cambérène dañ koo jox cër seen relation ak moom lan la. waaw parce que Cambérène mooy dëkk boo xam si ni moom boo faalewu kenn kenn faalewu la parce que yaakaar naa loolu da ko nit ñi rek moo tax ñu nit ñu fay ko loolu rek ku xewle amul kenn ku xewle rek góoraan foofu noonu yaakaar naa loolu la ko waaw moo tax mu am loolu noonu. 7 mhm. mars ngay bëree kan xam nga ki ngay bëree. Nokos lañ koy wax benn ba bu naan Nokos. Doudou Bakar Sarr. mës mhm. na bëree arène wala yéen ñaara yam parce que bii mooy sa première sorte. waaw bii mooy sama première sorte moom tamit bii am. Mm-hmm. lamb ju nar a garaawul bu nara a metti la war nara a doon waaw waaw mu ngi koy bëggunu bëggunu sax lu yomb incha allahu rabbi moom lépp lu mu laaj rek dinañ ko def incha allahu rabbi waaw amul bëggunu lu yomb moom Cambérène bëggunu lu yomb lépp bëggul lu yomb xare ba dar lan wax kon man nga xare des fa man nga xare ñibbisi kon xare rek bala nu yàlla may ñu jël 7 mm-hmm. mars ñëwagul mais ñaata séance ngay entraîner par jour di waajal combat boobu waaw moment bi moo la nëbbul maa ngi def trois séances maa ngi profité sax di di nuyu sama sama coach Omzo ak Zo sang bi ñoo may teg lu méttee métti métti ay Dege Ndiaye ay Jooba xam nga Ousseynou xam nga ay leket gars yooyu ngoonement bi duñ ma may dara billaahi wallaahi taala di përitoon tamit di nuyu xam nga Ibou Gaye Teranga ak ñoppat yi ñoo tamit kenn demul mu bees arlam su ma limee damay juum ay cëkkalaay ulamaaw bi endosine xam nga ay rangay dof yi gars yi daal ay séegalee Ousseynou Ama gars yi mooy loolu quoi sama grand ay aatu gis nga mu kenn demul ba des mooy def portrait yu am solo yi barki mam marema sëy waa mbayaar gi nag kenn demul ñu des ku si mel ni xëf moo may jox ndékki chaque jour jox ma tutaw ni ma reeral reeru mbër tu taw chaque jour waa mbayaar ga bàyyi ma kenn. trois bi laa bëgg ñu ñëw ci boo xëyee looy def. waa su ma xëyee damay xëy dem din su ma xëyee fajar damay dem din su ma ñëwee sangu ndékki dem saal ngoon ma demaat écrit ma demaat din ba waa des fois ma dem écrit ba quoi ngoon baa mi des fois ma dem din. ñu mhm. contact ban écrit nga nekk. door dooraat. yaa ñoom sos booy bawal ñan mbaalo junni. waaw. waaw ay Giro Seras ay jaget gars yi ngeen wees doo dooral nag ay Begaay gars yëpp naan ay Dalba Dalba Valdo ay nekko réel la gars yi ay ay champion yu bare ngi bare fa Cambérène naa la xamal seen xibli say bët si kanam di xool ay champion yu bare ngi ñëw barki Seydina Limamou billaahi wallaahi taala. jugee jug boo xamante ni du jug mbër mu ndaw. bu ñu ko daan gis ci làmb mbër mu mag moo koy jugee macha allah nga jug war a dugg ci xare boo xamante ni xare bu garaaw lan ngay dénk waa Cambérène. waa Cambérène dama leen wax rek comme ñu daan ñu def ñu daan def rek ñu ñëw jàppale seen doom xam nga amul man amul lu Cambérène ndax moom fu dul Cambérène man Cambérène laa am waaw waaw ak tundu Janeer. waaw su ma nee Cambérène mooy fi leen juddoo quoi mais tund jantee tamit mooy loolu ñu ñëw mobiliser jàpp bu baax a baax xam ne premier combat dafa metti nañ ñëw mobiliser xam nga bëgg nañ yóbbu 10 car incha allahu rabbi ñu ñëw mobiliser teel dem stade teel a feesal stade incha allahu rabbi loolu laay ñax waa Cambérène gars yi amul bàyyi na ñëpp jàpp mooy loolu noonu ñu dem incha allah. violence bi loo ci wax ci tundu Cambérène bi yëpp. non duñ violence. gars yi moom incha allah loolu yaakaar naa def na si ay réunions yu am solo amul violence amul ku ñu saaga bànn parce que ndam lañ jëm te incha allah mi ngi sunu lox kon dañ dem jëli ko rek boo gisee taraage sax yox la jëli ko lan def kon lu ñu fa teg dem di jëli la amul violence amul dara incha allah rabi. soo gisee wasaare làmb mu ñëw seet si xale boo xamante ni musul bëre combat arène te jàpp nañ ni ñii ñu seet si tey bu ëllëgee ñoom ñooy teewi làmb ban gis-gis nga am ci wasaare làmb. waaw wasaare làmb moom ba ay xam nga amuñu seen fay barke Seydina Mohamed parce que li ngeen jubte yéen feeñal mbër ndaanaan nañu ndaw yëpp yéen a ngi leen feeñal kon li leen dañ leen dañ ngeen bañ si am tànku arrière ngeen am si tànku kam kase parce que ay jeunes ngeen tamit mënu ngeen dem defi leneen mais da ngeen ñëw naa def wasaare làmb actualité kon xam na leen yàlla fay yéen bu baax a baax a baax a baax xam nga di gërëm sama turandoo xam nga jàpp mi ngi jàpp si combat ba Kër Massar Birame Niang di gërëm waa Kër Mbir Ndaw maa ngi gërëm waa Kër Mbir sama yaay fa la jógee maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di waa Sanc Bayax ba Noto Morla waa cene ba maa ngi leen di nuyu rawatina Cambérène xam nga sa kaw mi ngi see gaynde maam Ndooy Laxas gars a baay Basir gars yi ma maa ngi leen nuyu waa Cambérène maa ngi leen nuyu Arlem aw ma seen fay man Cambérène euh, laa ak Arlem yaakaar naa ñoo may cinquante cinquante yi Cambérène gépp benn la mais loola yàlla dogal maa ngi gërëm waa Arlem gépp ba Njaga Mbay tali Njaga Mbay maa ngi leen di gërëm jamono bee Cambérène gépp ku lim juum gétt ga fas gars fu waay nekk maa ngi leen waa jàppoo dof yi ogo ogo yëpp maa ngi leen sant di leen gërëm ndax ama seen fay sama xol moo fees te xol bu sedd doy na ñaan mais maa ngi gërëmaat sama ndey bu baax a baax a baax aw sama yaay maa ngi koy gërëm bu baax sama baay xam nga sama gaay nga ñoom njaax sama grand frère ñoom Zene xam nga laay fay gars yi dañ may teg lu metti demal entraîner du dem nga man xaw ma sax lii laa la quoi maa ngi leen di sant bu baax a baax billaay wallaay taala mu seen fay ëttu ñangeen maa ngi leen di sant ñoom ñëpp ay gars yëpp daal man daal lim naa a mënatuma lim quoi mais maa lim mafia lébu ndooy bi a moom combat bi de mafia lébu ndooy yéen a moom combat Ah, waaw gars yëpp daal gërëm naa leen gaal ay Endoso Tafa gars yi xam nga ku lim juum daal gars yi ngi nii mais maa ngi rewaat gars yëpp daal ñu gën a jàpp waaye amul bàyyi di gërëmaan ñang baalo ak Giro Seras billaahi wallaahi taalaay billaahi wallaahi xoolal waxuma leen bis bi te barki Seydina Mohamed ñoo ma woo ñëw jàpp si bis bi mel ni am nga mel ni man xam nga yëg nañ ko bu baax bu yàgg te yëgoon ko kon maa ngi leen gërëm bu baax a baax sama waa gars yi di may àndal dem dinañ chaque jour ay junni bégaay lekkat ay am nga dege njaay nee ko am nga joobaak Ousseynou Laay gars yi aw ma seen fay góor mbaxal maa ngi koy gërëmaat billaay wallaay taalaay ku def lu baax dégg merci te tubaab nee na merci baat bu gàtt la mais ku deful dara doo ko dégg góor mbaxal merci encore une fois ula maaw bi maa ngi lay sant aw ma sa fay gars yi daal man daal sama xol daal sedd na waaw gis nga loolu noonu waaw mi ngi noonu daal gars yi waaw ay ay man ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb dégg ngeen li nga xamante ni moom la Lébu Ndoye wax xale la boo xamante ni dafa war a bëre le 7 mars fële ci arène national Ouzin production moo ko tëgg mbokk yi kon bu ëllëgee noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo du tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew di 500. xaalis saram xaalis saram xaalis saram mu jël avance def dañ ko jox avance.